waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ale si Kayar Point Rond bokk aussi si kuréel gi nga xamante ni mooy saytu suñu moomeel en même temps ñu bokk si ñi nga xamante ni tey dañu am yéene taxaw ngir ni nga xamante ni mooy Kayar taxaw Kayar comme ñun koy faral di waxee tant que ñu ngi nekk des hors la loi on est tenu ñu am ay nit ñi nga xamante ni dañuy recadré waat li nga xamante ni mooy dëgg lii dëgg mooy lan mooy dañu xëy suba teel ñu gis ben maire bi nga xamanteni dafa convoquer conseil municipal bu Kayar ci autorisation ngi wax ni depuis 2016, ko ba et ki nga xamanteni xam nga lan yoon di nga papier bu au bout de deux ans mu nek li nga xamanteni moy moy caducité day day taxaw te na ni ci biir lolu amon nañ li nga autorisation de lotir bi dañuy wax ni à chaque fois Kayar boo demee nekk maire wala nga nekk une autorité déconcentrée ou décentralisée dañ lay jox di nga xamante ni autorisation de lotir defe naa ñi nga xamante ni jànguñu nag ñu jël ben ben ben vague comme quoi que ni mairie bi am nañ autorisation de lotir ñu brandir fu ñu toog dañu fàtte ni autorisation de lotir boobu dafa war a am lu mu àndal est-ce que mairie bu Kayar dañuy laaj ñun dañu am beneen compétence bu bokkul ak compétence yi nga xamante ni moom la ñu jagleel ñi nga xamante ni mairie pour la première fois de l'histoire du Sénégal ñu gis ben maire mu mu woote li nga xamanteni moy moy moy un lotissement bu ñuy def ci bande de filao alors que ñun Kayar yëpp kenn gisul benn décret bu président de la république def buy wone ni fii dañ ko war a déclassifier te gis nañ ni bu ñu waxee ni war nañu am 27 hectares à Darussalam. Nous ñu war am 10 hectares et plus à Point-Rond ñu ni dinañ am aussi leneen li nga xamante ni moom mooy hectares soo soo calculer suñ cumulé on est déjà sur les 60 hectares loolu dépassé na sax prérogative le sous-préfet dépasser nos prérogatives au préfet dépasser nos prérogatives au gouverneur Si nous xoolee si actes yu mujj yi nga xamante nous lañ tout ce qui dépasse de 60 hectares et plus on est tenu que le président de la république mu déclassifier li nga xamante c'est la bande de filao bi nga xamante ni ñun moom lañ dëkk bu ni bande de filao bi dafa am ñoo xamante ni ñoo ko fi même le colon bi nga nous ni ñoo la nécessité nous ñu aar li nga xamante ni mooy suñu pour éviter que nous dun yi di dem si de yi

Ben entité yi nga xamanteni Ben benn entité bokk seeg sa morom kon ben prérogative lañ am ben priorité lañ am moy lañ lañ mën def ba régulariser li nga xamanteni mom moy site bi nga xamanteni mom lañ nek tay nous sommes en 2024 lañu nek. ñuy gis ay lotissement ñukay toj ñuy gis ay kër ñukay toj l'exemple de Mbour 1 est là ñu demaat fenen nga xol Lac Rose le maire problème am fa. nga wat ci li nga xamanteni moy mooy ben ben ben nit ben maire lotissé ay ay ki jox ay nit tey le président déclassifier 60 hectares alors que 60 hectares yooyu amna na xamanteni xamante ni yor nañ ci papier bu tudd notification parce que bande filao nekul lo xamanteni maire mo ci am compétence donc bu ñu gisee loolu tamit day fay jaadu ñun ñu taxaw bind nañ nak ñi nga xamanteni ne ñooñu leen war a bind ñëpp te dinañ saisir ñi nga xamanteni ne ñooñu leen war saisir bu ñu gisee ay plainte di dem jusqu'à présent ñu ñuy menacer ci menace bi nga xamanteni ñun un point de presse pour la première fois de l'histoire ñuy taxaw ay nit nan da ngay warona demander autorisation demander autorisation pour lan pour nous un point de presse pour montrer à Kayar aux Sénégalais que nous li moy li nga xamanteni nous am le banditisme bi nga xamanteni nous lañu nous ñuy japp ay nit di len boddi ñu gis maire bi nga xamanteni mo warona a boole ak ñi nga xamanteni tay dañu jappé woon ñu dañuy wax chaque jour que de fait, on est plus que n'importe qui est-ce nous nous bëgg Kayar bu nous Kayar que ñun suñu doole ci Kayar la nekk ñoo fi mujjé judd nga xamanteni dañ fay nekk def ay génération génération bu ñu waxé mën nañ leen mais tay bu fekkonte ne am maire bu jangul won da dafay nek teg leppam si yoon ndaxte buy def sax dina dem laaj mais ñu gis un maire bi nga xamante ni tey dafa dañ ñu won au moins un intellectuel cet intellectuel ñu gis muy braver li nga xamante ni mooy la légalité vraiment on est tenu que ñun ñu taxaw jot na aussi Kayar xamni du cœur moy suñu yitte yitte bi moy mënu mënuñoo gis maire bi nga xamante ni tey boo demee lotissement par lotissement amorcellement par amorcellement may commencé Kayar Daaru salam dem kër Abdou dem jàmm gën jaare jàmm gën jóge fa dem fi nga xamante ni ba wel dañuy jàpp ni foofu yëpp ay amorcellement la ko def te on a les preuves que ni sur les quatre mille ou six mille parcelles yi nga xamante ni moom moo nekk le quota de Kayar amul benn boo xamante ni tey mën ngaa wax au contraire dañ koy fay ay bor nga dem si compte administratif ba ñu ni fay nañu nit ki nga xamante ni quinze millions wala vingt millions nga dem nit kooku noonu nga ñëw ñu fay ko yow terrain boo jënd ba mooy Kayar fi ñu waroon a toll mooy ñu régulariser lu ñu am. dañuy jàpp ni Kayar amuñu problème mu suuf xam nga ñun problème ban lañ am moy problème mu njit bu bëgg Kayar ndaw yi nag dinañ leen jaxase ak ñi ñi ñoo bëgg Kayar wax tax ma ne ñii ñoo bëgg Kayar parce que ñi ñoo xalaatul kër guñu wara am ñi ñoo bokul parti bokkuñu principe bokkuñu ci li ñuy doxé mais ñu gis ni jëmmi Kayar kessé moy seen yité jëmmi Kayar jooju nak dinañ ñu ci xass dinañ ñu ci saga dinañ ñu ci gajji dinañ ñu ñu traité de tous les noms de tous les noms d'oiseaux mais dañuy assumer suñu position assumer suñu position à telle enseigne que suba dinañ gis ni

dañuy laaj nag ana ndawi Kayar yi nga xamante ni dinañ pare pour aar Kayar aar Kayar pour lan pour suba suñ ay génération mën a aaru jot na ñu ni maire bi si boppam dafa dem ba au agent des eaux et forêts mais dañu gis ni maire bi mooy cadastre parce que c'est à Kayar seulement la ñu gis benn lotissement bu taxaw lotissement boo xamante ni autorisé nañ ko dañuy laaj ñun suñu stade bi nga xamante ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñun capitaine d'équipe yi nga xamante day taxaw ba tey. ñun wa Kayar googu ñun ñoy laaj ana suñu stade stade bobu ñoo ngi koy laaj parce que tout simplement xam nañ ni lotir nañ ko def ko ay parcelle jox ko ay nit ba pare en même temps ñuy jëlat fi nga xamanteni ni am nañ si autorisation ba lotissement bi taxaw ñu gis un maire ak son conseil municipal ñu tégaat fa benen lotissement bu bokul ak lotissement boobu est-ce que lolu moy Kayar est-ce que Kayar mérito nañ njiit yi est-ce que Kayar aussi mérito wuñu lepp lo xamanteni dañ kay def ñu jëm xëc ba ku ci nekk xamni kat dañ kay yonal dañuy wax ni bande de filawo bi pour dëkkuwaay moy risque ñep bande de filao bi nga xamanteni ñun mom lañ gis ñu gis ni même su fekkonté ni dañ koy def ay dëkkuwaay sax amna ay préalable yo xamanteni amul benn buñ si respecté defe naa loolu moy suñu taxaway té loolu kessé moo tax ñu taxaw té incha allahu rabbi lépp lu ñu gis ci Kayar lo xamanteni day lëndëm si ñun rek taxaway bi dina am ñu seq ak ñi ak ñi nga xamanteni ni ñoo fi nekkul nañ nak suñ ay mbokk ñu dem tay dinañ leen ka may parce que bëgguñu désordre ci koñu ñu et on n'était pas préparé pour ñu am loolu parce que dañu won un simple point de presse moom lañuy def dugg fii dinañu métti lool mais la prochaine fois incha allahu rabbi lépp luy am ñu dinañ jël suñ ay matuwaay ba lépp lu fa xam rek ñu xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko cherché ñoom ñoo ko ut parce que ñun point de presse kese bëggoon maire bi pour le moment parce que dafa def ñaari xam nga nasaxal gi mooy mu jënd ñaari ñaari bois de village bois de village un day nekk vingt sept hectares ñuy jooy pareegunu mu ni dix hectares parce que man mii di wax ak yéen koñ bii dëkkuma fi maa nga dëkk Poyano fa woon ñii ngeen di gis ni dix hectares lañ waroon a jël si ñoom ñu taxaw xex ba loolu amul commencé wuñ ko ñu ñëw commencé ko fi tay suñu xolé bu ñu jëlee dix hectares ak 27 hectares yi ak 18 hectares yi nga xamanteni mom la wax ci lotissement bu bes bi pour fay ay bor fay ay bor la dégg lo xamanteni ni kenn xamul ko comme mom donc dañuy jàpp ni au moment au moment té dañuy jàpp ni maire bi jël na lu upp 60 hectares yo xamanteni ci bande de filawo bi la forêt classée pour wax ni daf koy def li nga xamanteni mom moy ay ay ay ay lotissement alors que ni ñun wax dëgg yàlla mosuñoo gis fu ñuy lotiré bande de filao sans langue point de presse bi li tax ñu gis ko si que sàkkuwun ko fi woon parce que dañu ñi nga xamante ne ñoo nekk Kayaar yëpp ñu gis li xew tey képp kuy défendre foofu noonu rek c'est que tegoo si sa bët mais je pense que ni bu fekkoonte ni dañu bëgg lu leer mu bëgg ñëpp mu équitable nañ ñu may ñun ñu teg suñu point de presse fa nga xamante ni fa war a teg bu ko defee ñi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal yëpp ñu xam li xew protocole bi dañuy wax ni parce que li lay wan ni la daanu daanu daanu weesuwul nga ni protocole de 2016

donc si vous avez un dafa en 2024, nous allons quatre même protocole Nous bëgg a ci xelu nit ñi liir bu amul doom xamoo góor la wala nous nga dem marché ndugal ba taxaw yor bu nous, avons ñu dal pourcentage bi nit ñi di wax nit ñi am lu leen parce que nous gis ni ni parce que aussi il faut nit ñi peut-être ñu ni maire Nous avons doy le maire Gaz maire bi doy parce que maire la bëggul doomi kayar sax di def ci kayar li gëna graw moy doomi kayar bu yalla tekkil gën la tekk gëna tekk ñeneen ñom ñoy ñew di jël seen doole di duggal si kayar ñu ni doo ko fi duggal wala ñu jappé ñoñu boddi leen tay protocole bobu maire bi ci bopam ñu ni 40 sur les 903 parcelles 40 mom cent lañ bëgg jox benn promoteur et sur les 40 aussi ñuy wax les 40 ñuy wax non dañuy jappé ni lotissement bi yépp 70 kessé mo ci wara si nek habitat kon 70 yoy so génné 40 ñaar mom mo ci dessat suba ñun ñuy appelé à ce que ni kii nga xamante ni mooy maire bu fekkente ni tamit dañuy woow ñi nga xamante ni ñooy les autorités décentralisées ñi nga xamante ni ñoo war a acté bu maire dérapé sur la légalité ñoo ko war a delloowaat ginnaaw ñu ñëw si place bi ñu xool lan moo fa am su fekkente ni terrain nuyu lañ fa gis wala parcelle bi nuyu ñoom mën nañoo wax ni ñun ñii ñëpp nous sommes des politiciens mais suñu demee gis ni foofu noonu amul benn terrain nuyu bu fa nekk kon bande de filao la ñuy brader